gannaaw loolu yéesu di dem ca ay dëkk yu mag ak yu ndaw di waraate ak di yégle xabaar bu baax bi jëm ci nguuru yàlla fukki taalibe ya ak ñaar ànd ak moom ak ay jigéen yu mu teqale woon ak rab te jële leen ci seeni wopp ñu di maryaama mi ñuy wooye maryaama magdala mi yéesu tàggale woon ak juróom ñaari rab mi doon wattu alalu erod ak susaan ak ñeneen jigéen jigéen ñooñu ñoo doon joxe seen alal ngir dimbali yéesu ak ay taalibeem dëkk ak dëkk nit ñi dafa jóge jëm ci yeesu ba mbooloo mu bari dajaloo mu wax leen léeb wii dafa amoon beykat bu demoon ji bi muy saaw toolam nag lenn ci pepp mi wadd ci kaw yoon wi nit ñi joggi ci picc asamaan lekk ko lépp leneen wadd ci barab bu bari ay doj naka la sax rekk daldi wow ndaxte suuf si tooyul woon leneen nag wadd ci biir ay xaaxaam ñu saxandoo xaaxaam ya ci ko li ci des dal ci suuf su baax sax nangu ba meññ téeméeri yoon lu ëpp la mu jiwoon ginnaaw loolu yéesu wax ak kàddu gu dëgër ne déglul bu baax yow mi am ay nopp taalibe yeesu yi laaj ko lu léeb woowu di tekki mu tontu ni leen may na ñu leen ngeen xam mbooti nguuru yàlla waaye ñi ci des dama leen di wax ci ay léeb noonu la ngir ñuy xool te duñu mën a gis di dégg te duñu mën a xam lii la léebu baykat bi di tekki kàddug yàlla mooy jiwu wi ki féete ci yoon yi mooy ki dégg gannaaw gi seytaane dafay ñëw këf kàddu gi ñu def ci xolam ngir mu bañ a gëm te yàlla musal ko ki nekk ci barab bu bari ay doj mooy ki dégg kàddu gi ba noppi nangu ko ak mbég waaye wax ji saxul ci moom dina gëm ab diir waaye bu natt yu agsee mu daldi dàggeeku ki jot ci jiw ci xaaxaam yi mooy ki dégg kàddu gi waaye nes tuuti soxla yi ak alal ak bànneexe àddina tànc ko ba du àgg ci mat ki jot ci jiwu ci suuf su baax si nag mooy ki dégg kàddu gi te denc ko ci xool bu baax bu gore te muñ ba jur njariñ kenn du taal làmp dëpp ci leget walla mu di ko def ci ron lal daf koy wekk ngir mu leeral ñiy dugg amul dara luy kumpa lu ñu dul siiwal bés walla lu làqu lu ñu dul feeñal ba mu ne fànn seet leen bu baax ni ngeen di dégloo kàddu gi ku am des na la dollil waaye ku amul des na nangu sax li nga xalaatoon ne am nga ko ba noppi noonu ndeyu yéesu ak ay rakkam ñëw seetsi ko waaye mënuñu woon a agsi ci moom ndaxte nit ña dañoo bari am ku ko yëgal ne say yaay ak say rakk ñu ngi nii taxaw ci biti bëgg laa gis waaye mu daldi leen ne samay yaay ak samay rakk ñooy ñiy déglu kàddu yàlla te di ko topp benn bés yéesu àndoon na ak ay taalibeem dugg ci gaal mu ni leen nanu jàll dex gi noonu ñu dem mu ñuy dem nag yéesu daldi nelaw ngelaw lu am doole daldi ñëw yëngal dex gi gaal gi fees ak ndox ba ñu bëgg a suux noonu taalibe yi jege si yeesu yee ko ne kilifa gi kilifa gi ñu ngiy dee ci kaw loolu yéesu jóg daldi gëdd ngelaw li ak duus yi lépp dal bani nemm yéesu ne taalibe yi ana seen ngëm ñu daldi tiit te waaru naan ci seen biir kii moo di kan mu ngi jox ndigal ngelaw li ak ndox mi ñu koy déggal noonu ñu teer ca diwaanu waa seresa fa jàkkarloo ak diwaanu galile bi yeesu di wàcc ca gaal ga ku rab jàpp ca waa dëkk ba ñëw kar ko yàgg na def yaramu neen te dëkkul ca kër waaye ca sëg ya lay nekk bi mu gisee yéesu mu yuuxu daanu ci tànkam daldi xàccu ne yow yeesu doomi yàlla aji kawe ji loo may fexeel maa ngi lay ñaan nga bañ ma mbugal dafa wax loolu ndaxte yeesu santoon na rab wi mu génn ci moom rab wa dafa ko doon farale jàpp nit ñi daan nañu ko wattu di ko yeew ak ay càll la ak di ko jéng mu di leen dagg rab wi di ko xiir ci barab yu wéet noonu yeesu laaj ko noo tudd mu tontu ne coggol laa tudd dafa wax loolu ndaxte rab yu bare ko jàppoon rab yooyu ngi ko doon ñaan ngir mu bañ leen a sant ñu dem ca kàmb gu xóot gi fekk amoon na fa géttu mbaam xuux yu bari yuy for ca tund wa rab ya ñaan yeesu mu may leen ñu dugg mbaam xuux ya mu may leen ko noona rab ya génn nit ka dugg mbaam xuux ya ñu daldi bartalu daanu ca dex ga lab sàmm ya gis li xew daw nettali ji mbir mi ca dëkk ba ak ca àll ba nit ñi génn ngir seetli xew bi ñu agsee ca yeesu ñu fekk fa nit ka rab ya bàyyi woon toog ci kanam yéesu sol ay yére te ànd ak sagoom ñu daldi ragal ña fekke woon mbir ma nag nettali leen naka la wërale ki rab ya jàppoon ci kaw loolu waa diwaanu sereesa bépp ragal ba ñaan yeesu mu jóge fa noonu yeesu dugg ca gaal gi di bëgg a dem nit ki yéesu tàggale woon ak rab ya ñaan ko ngir ànd ak moom waaye yeesu woññi ko ne ko ñibbil nettali li la yàlla defal lépp noonu waa ji dem di wër dëkk ba yépp di fa yëgle la ko yeesu defal bi yeesu dëppee dellu mbooloo ma di ko teeru ndaxte ñépp a ngi ko doon xaar noonu nit ñëw tuddoon yayrus te nekk njiitu jàngu ba bi mu egsee mu daanu ci tànk yeesu saraxu ko mu ñëw këram ndaxte jenn doomam ju jigéen ji mu amoon képp te muy toll ci fukki at ak ñaar ma nga doon waaja a dee bi yéesuy dem nit ñaa ngi doon buuxante di ko tànc amoon na nag ca mbooloo ma jigéen di doon xëpp deret diiru fukki at ak ñaar te kenn mënu ko woon a faj jigéen ja jege si yeesu nag doxe ko gannaaw laal catu mbubbam te deret ji dal yéesu laaj nit ña ne ana ma laal ku nekk di miim noonu piyeer ne ko kilifa gi nit ñépp a ngi lay wër di la tànc wet gu nekk waaye yeesu ne am na ku ma laal ndaxte yëg naa ne am na doole ju génn ci man te jigéen ji xam ne mënul woon a nëbb li mu def mu daldi daanu ci tànki yéesu di lox noonu mu nettali ci kanamu ñépp li taxoon mu laal yéesu ak ni mu wére ca saasa yeesu ne ko soxna si sa ngëm faj na la demal ci jàmm bi yéesu di wax nag am na ku jóge ca kër njiit la mu ñëw naan sa ngay sonal kilifa gi yéesu dégg kàddu yooyu daldi ne njiit la bul tiit gëmal rekk te dina dundaat bi yeesu egsee ca kër ga nagul kenn duggaale ak moom ñu dul piyeer yowaana sak ak waajuri xale ba ña fa nekk ñépp di yuuxu ak di jooy xale bi noonu Yeesu ne leen bàyyi leen seen jooy yi jànq bi deewul day nelaw rekk waaye ñu di ko ñaawal ndaxte xamoon nañu ne dee na waaye Yeesu jàpp loxo jànq ba woo ko ne ko xale bi jógal noonu ruuwu xale ba dellusiwaat mu daldi jóg ca saasa yéesu santaane ñu may ko mu lekk waa juri xale bi daldi waaru waaye Yeesu tere leen ñu wax kenn li xew